تخل جنة لركبك نلف بدقي بيت جنة دقي جاخ جنة دقي مرمك وتغلق لتبلغ ما بعد ما بعد زمان ما بعد زمان ما بعد حنا مسؤول أمجد سرني أبودنا يا دي بوكتب مسبنا دارو ساسن تنخلق سجود مبنا الخيط سنة لدل سنة بلال بلب الشجي ودل ويكتي وي وي دلي جاي ميت سجد لدي ويدي وي يسجد وي نربتي جسنا لوي أبو الخادي بياد ناظر سفيد وي نربتي جسنا لوي أبو الخادي وين ربتي كسنا ويلي انظر فيا رب سلم على المصطفى يا دم اي وخمتك دروي اي جفاء مصطفى يقم عبد العزيز تفجري اي جفاء بسلم على المصطفى يقم أي وقم تقتري أي جفن يسلم على المصطفى يقم أي وقم تقتري أي جفن خلف يا رب سلم على المصطفى يقم عبد العزيز تقتري أي جبل أما بسلم المصطفى نزل أي وقت بسلم على المصطفى نجم عبد العزيز تجري أي جزم على المصطفى نجم بالجبل تجري أي جزم على المصطفى الكيت سنة لدل سنة بنا لبن بالتجن الكيت سنة لدل سنة بنا لبن من انفتح بدم بنا الكيت سنة بدل سنة بنا لبن بالتجن من سفاكن سرين سيدا يضل ورس دمي وخل من لا تجسمي غلم مدام حلفا والحاج عبد العزيز أجل المؤمنين خليفة الحاج عبد السمار من يبني يمك الخليفة دي واسما واكر لن ينك jërëgeen jëf jërëgeen jëf jërëgeen jëf léebal la jëmbatu tey ci wàllu baay ak ndey maam sunu maam maa li nga tax gaa ñay xëccëb xalifa jërëjëf jërëjëf alxaaj abdul aziz si malik yaa rafet li nga jëf yaa boole lislaam bi lépp benn ngay xalifa. andi andi man la wax andi. andi andi man la wax. man nii la wax. waajaa gi moo fi nekkoon te dooma di baay. الحاج عبد العزيز لا وخبيب خليفة ñun ñëpp ni nii yaa laq ridwaan fa rabbul arshi yaa ajaban alxaaji Abdul Aziz si tóortóore bi xalifa ci alxaaji Abdul Aziz si Maalik fard bi boori wurus ci ngalam wuute nee far ci naati woote ab xalifa sëñ bi noobal la démb du tey ci wàllu baay ak ndey maam sunu maam ga tax daani xëccoo xalifa si Malik بجاه نبي شفيع الأمم بل يا سفيت وفتنا وانسكنا وبندل أطب يا سفي من يبنني نمجلكو وفتنا وانسكنا وبندل عبد العزيز مالك نابل الجنب تتي جوالو بايك نيمام سرما مالكاته gaañe xëccoo xalifa aw murit xaadir laayeen waaju ñëw mu teral teg ca kaw li la ji laay karim yaa war di ab xalifa mu nda sunu xel yi dal na bëggoon ko nag moom mu jooy ba gëlam yàggal fii abdoulaye si malik waajaange waajaange waajaange waajaange waajaangi na ñëpp ni nii ñu màggal xalifa bi waajaange doom yaay sa siitu ñaawul abdoulaye si malik أعوذ بالله من الشيطان rajim maa ngi muslu gaañi waane alhamdulilah nu sant kii dogal yàlla yabal malaaka buur bi xëy dogal yàlla yabal malaaka mawti xëy si na mu xëye woon ahmadu xayru naasi قدس الله روحه باي عبده على جوار مصطفاك احمد
وي باي سيرن عبد السوتور دا فاي ملني لم سجل دوت سابي دا ساب خرم lu delloo ci jooju njëriñ ndax yaa ko jóg yaa fi jël waa Sénégal ñu am lii ñu am. dama réer woon mbir ci yow maanaam. abdi yaa mat te yaa jara damoo dama réer woon mbir ci yow maanaam. usratu maalik xalifa bee di Mansoor jërëjëf bàyyi baa ko samp doog a dem di léew jërëjëf fa tabarakallahu dama tudd Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh nit ñëpp nekk ci xaal waaw
waa xaar ma woon la xaar wala ma aritu oui. toogal. toogal jërëjëf jërëjëf Idriss jërëjëf jërëjëf. ngeen baal ñu xaq. dama tudd Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh wax ne. xeeti dimbali ak xeeti yërmande ak xeeti mbaax ak xeeti yaatu ak xeeti jéggale ku ci waxtaan sa xel dem ci Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Sy xale yi way ma ànd ndoog ñoom way waaw man way kenn mënu ma ci nax ah kenn mënu ma ci nax waaye li ma tuddee Cheikh El Hadj Abdoul Aziz nañ fàttaliku sunna si mu def fii ci Sénégal toog xalaat xelam dem ci ñi néew doole mu ne dëgg-dëgg ñi néew doole ñi néew doole ñi am doole di lekk rek di leen wàcc rafetul ci yàlla xëy ni lu waay am na ko indi jiitu ca nag moom def ca alalam ju bari woo miskin yi ci grande mosquée ñëpp añ reer ndékki suur kël loolu mooy njëglaayu Sénégal mu jóge fi ñu ne pat ay nit nekk ca Saoudi ni li Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Dabakh def defoon jàngale la duñ ko bàyyi noonu xëy yónnee juróom-ñaari million ni ñoo ko yëkkatee kàddu Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Dabakh googu mu leen jàngaloon jële ko ci alquran ak sunna nit ku foog te xam lu xew noonu lay def bu amee kilifa diine gu baax mu digle dafay roy jëfandiku moo gën di wax rek nag daanaka nag lu ñuy wax desatu fi lu ñu war a jëf rek moo fi des lu waay war a dégg dégg nga ko lu waay xara xam xam nga ko maa ngi ñëw nag ci tëj bi yonent bi nee na rahima allahu abdan samxan ida baaca wa ida ishtara wa ida iqtada wa fi riwaya termisiya gafara allahu rajula kaana qablakum kaana sahlan ida baaca sahlan ida ishtara sahlan ida iqtada nit ku baax ba buy jaay sax feeñal ak tabe ci njaay ma feeñal yërmande ci njaay ma yonent bi nee na yàlla daf koy baal ay bakkaaram lan la ko cay feeñale mooy mu teg ci bénéfice bu tuuti ngir bañ caa teg bénéfice bu bari ndax ne kon ñépp duñ am njëgam thème bi dafa yaatu suñ mbokk Melody Ibrahima John mbooloo mi mu jiite te dara taxu leen a jóg lu dul wër ku réer ci thème bi la bokk xanaa xamuloo ni ku silmaxa romb la sax soo ko ommatee ñeent fukki tànk bàyyi ko yàlla dugal aljanna yonent bee ko wax yonent bi nee na man qaada ama arbaina xatwatan adxalahu lahu aljanna nee na gumba gu la romb ni la man de dama bëgg a dem fële ca waagu ñaay nga ne ah manuma laa yóbbu ba nga yegg waagu ñaay de waaye dinaa la wommat ba nga dox ñeent fukki jéego yeneen ci bi nee na boo ko ommatee loolu yàlla dugal la ci aljanna waaw boo ko añaloon wala nga reeral ko nag kon ku jël sa essence di ko taal bu dégg bëccëg ngir wër ku réer ci tam bii la bokk faj ku feebar ndéem fajkat nga ci thème bii la bokk jàngal ku réer ndéem boroom xam-xam nga ci thème bii la bokk dimbali ku sonn ci thème bii la bokk ku la leb te amagul fay nga muñandiku ko ci thème bii la bokk suturaal awray jaamur yi ci thème bii la bokk wax lu la wóor ci deru jaamur yi ci thème bii la bokk maandu ci nit ñi bañ leen a wax lu bon ci thème bii la bokk xam nga ñun nangu nañoo julli nangu nañoo woor nangu nañoo asaka waaye xam ngeen lu ñu të nett li lu ñu xam xabaar bu xew koo dajal mun la laaj ma maa ko fekk nit ñëpp mën nañoo fekkee ndoo leen mënul am loolu moo ñu yàqal lu bare bare bare bare bare dafa am lenn waaye ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaaykat la am ñu ne jiitu na jamono yonent bi mu labal benn nit kooka am yéene yi fay am jom yi fay waaye amul ba génn àddina yonent bi nee na ba mu deewee nañu koy àtteeg borom bor boobu ëllëg nee na yàlla xamal na ma ko fii ci àddina nee na dafay dekki ëllëg toog ci kanamu yàlla yàlla woo borom bor bi ni ko kii de daf la amee loon
waaw lu tax nga muñandi ko ko ba mu ñëw fii nee na mu ni ko damaa yëg ni dafa nekkoon ci jafe-jafe ma ne daal nit ku jafe jafe duma ko fitnaal naa ko muñandiku sunu borom ni ko ndem am nga baaxu baal ko li mu la ameel te tële ko taxoon fayu la maa ko gën a yey ci loolu ana axaqu bi dalika daal di ne malaayika yi tajaawazu li abdi yéen ñépp na ngeen baal sama jàmm bi lu mu mas a am ci ñaaw ñaaw kon nit ku sonn ku ko muñandiku yàlla baal la say bakkaar kon waxtaan wi yépp su fekkee bëgg naa ko résumer pour ñu dégg ko moo di nañ dimbalante ngir yàlla nañ soppante ngir yàlla nañ yërëmante ngir yàlla yonent bi nee na man laa yarxamu laa yurxam ku dul yërëm kenn du la yërëm nee na irxamu man fi ard yarxamkum man fi sama yërëm leen ki ci seen suuf ki ci seen kaw yërëm leen nee na arrahimuuna yarxamuhum rahman ñi yërëme yàlla dana leen yërëm mu ne arrahmatu la tunzaaw illa min shaqiyin aw xeet suñu génnee yërmandi ci seen xol booy ba xam ni texe dinañu kon nañ yërëmante ci suñ diggante sukuraale ci suñ diggante soppante ci suñu diggante jàppante te yàlla tax yëkkati suñu kilifa yi diine te fonk leen te wekk leen te teral leen ngir jëmm yàlla baalante suñuy àq kenn ku ne na jox loxo moroomam baalu ko te bu ko tànnee dimbali ko lii la ñu waroon waxtaane lii la ci waxtu yu maye maa ngi fi yem jox sëriñ bi yi ma doon junj yépp mu firi ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu
وإذا فزادهم بين الورى بالله بين الورى ممد لمن كرنا ويبل زادهم بين الورى كرنا ويجرنا وبدا بل زادهم بين الورى ممد لمن كرنا ويبل زادهم بين الورى رفيلا بل زادهم بالله بين الورى ممد لمن جرنا ويبل زاده بين الورى شفينا زين الخيج كوبل زادهم بين الورى جرنا ويجرنا كالجير بل زادهم بين الورى بل زادهم بين الورى محمد لمن جرنا ويبل زادهم بين الورى شفينا زين الحيت كوبل زادهم بين الورى محمد لمن جرنا ويبل زادهم بين الورى سفينا بل زادهم والله بين الولاء محمد لمن جرنا والبل زادهم بين الورى سبينا زين لحيك توبل زادهم بين الورى محمد لمن جرنا والبل زادهم بين الورى تفضيلا بل زادهم بالله بين الورى كل جرى كل جرى بل بل زادهم بين الورى يا جرى يا جرى كنجر بل زادهم بين الورى جنة يخلو بدل دود دود دود دود دود يا جرى يا جرى كنجر بل زادهم بين الورى جل جرى جل جرى بين الفساد بين الورى بين الحيث ثوب زادهم بين الورى جرنا ويجرنا كجير بزادهم بين الورى تفصيلا بزادهم والله بين الورى واو لا لا لا لا بزادهم شفينا زاد لحيك ثوب زادهم واو بين الورى نمر من جرنا ويبل زادهم بين الورى تفضيلا زادهم بين الورى جرنا وبزادهم بين الورى جرنا وجرنا دوبتي بزادهم وواو بين الورى محمد لم جرنا بزادهم بين الورى جرنا وجرنا دوبتي بزادهم بالله بين الورى محمد الأمين جرنا بل زادهم بين الورى خيدك وبل زادهم بين الورى بين الورى لا إله إلا الله بل زادهم بين الورى محمد جرنا ويبدأ بل زادهم بين الورى مغد لبن جرنا ويبل زاده بين الورى تفضيلا
jërëngeen jëf mbokk yi fi teew yëpp yéen ñëpp Seydou Bokar mi ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu nee na ñu ngi ziyaara ñëpp di baalu àq nag ñëpp di ànd ak ñëpp it sant yàlla
ndax daal dëgg-dëgg cant war na ci li fees ak ci li nëbbu kon daal ñi ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di ñaan nag yàlla yàlla nañu yàlla nangul sunu cant ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cant gi mën na doyadi waaye nag bu ko yàlla nangoo cant gi am solo te nag yëg rek moo am solo yëg nañu nag li nga xam ni moom la ñu yàlla defal jàpp nañu it ni li ci gën a tuuti mooy sunu jotaayu daaw yàlla may ñi ñu toogaat ko fi ren te nag ñu toogee ko nag ak sago ci biir jotaay bi it mu defal ñu tawfiix ñi di bokk di nawle daje fi war a waxtaan waxtaane sunu diine wala sunu diggante nan la ko diine tërale loolu rek lañ fi waxtaane diggante fa nu doore woon nag ak fi nu yem nag lu ne mënoon na fee dugg ndax woo nit ñi ba ñu daje ngir leen ñu ñëw nag nga wax leen leneen loolu xew na yàlla dogal na nag fii yàlla nee na lanu fi doore yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na lañu ko tëjee lu fi dox ci diggante bi rek ku yàlla baaxee ci xam-xam nga bind bàyyi fi mbaa nga wax nit ñi dégg ko ñu wax nag ba agsi ca jël la nag comme référence loolu rek moo fi xew kon tawfiq dugg na ci ñu war a sant nag tawfiq googu nag cant gi war suñu diggante ak suñu borom nag mëtu mënuñu koo matale xam nañu ko yàlla xam na ko ni mënuñu koo matale waaye nag xamug yàlla gu jiitu ci ay jaamam xam ni moom buur la boo xam ni kenn mënula matale digganteem ak moom ci yërmandeem ak ñeewanteem ak bëgg a jubóog nun la nu yombale lépp ni li may def su ngeen ci toppoon di ko wax wala di ko sant du sotti kon daal ci lenn rek ngeen di sëgg loola du sotti ndax xeef ak xippi nooy yi génne nooy yi dugal moom daal ko mënoon bu dugg nga sant ko bu génnit nga sant ko moom daal ku ko bëggoon a def liggéey di nga fi yendu te sa dara du dox ni yàlla waaye nag subhanahu wa taala baaxe ñu rek ni yem leen rek ci alhamdulilahi rabbil alamin ñi ngi koy sant nag ci baaxe googu mu ñu baaxe yombalal ñu loolu ci baatu alhamdulilahi rabbil alamin ñu wëlbatiku nag di ko ñaan yàlla nañu yàlla nangul ne jotaay bi yal na ko yàlla boole ca jotaay ya muy nangu barkeel ko ca xadaraan ya ca xadaraatam ya yal na ko yàlla def su ko defee mu far ci nag lu paase te rafetul woon defaat ci fii ñu toog faggul ñu ci ëllëg ba dara dootul yàqu ci barke yonent bi yàlla nañ ko yàlla boole defal cant daal bu saxee rek loxo bi yàlla tàlli te nag loxo bi yàlla mooy loxo bi yërmandeem kon yal nañ ci yàlla xiir ci di ko sant ñuy nuyu nag mboolem ku fi toog di dayira di la ziyaara di rafetlu nag sa teewaay fii Sido Bakar ne dayira yi bare nañu fi sànq di président bi di lim dafa am ñuy teel a ñëw nag présenté wu am ñoo xam ne ñoom dañuy ñëw rek toog moo tax Habib wax la sànq ni la jeexunu waaye nag ñoom ñu jàppe seen teewaay fii ni yàlla moo leen fi indi yàlla mi leen fi indi nag yàlla na leen yàlla gisal boppam ne def nañu lu baax mbir mi xam ngeen ni ñun ñoo ko bokk